di dalal gan gi euh, Hélène Tine euh, nekkoon députée euh, di tey coordinatrice bu mouvement pour un Sénégal d'éthique et de travail honorable député ñu ngi lay nuyu am mbégte dalal encore ci matinal bi. waaw Fatou maa ngi lay fay. jërëjëf en tout cas ci ànd bi ak ñun ak teel a yeewu bi actualité bi tey benn la mooy remaniement bi waaye ci kaw remaniement boobu itam beneen actualité ñëw tegu ci muy faluk Idrissa Seck ci bopp conseil économique social et environnemental moom Idrissa Seck ngeen àndaloon. ci élection présidentielle bi ñu weesu mu nekkoon candidat wu coalition Idy 2019 est-ce que yow euh, xaaroon nga lu ni mel aussi bien ci gouvernement bi ak ñeel Idrissa Seck. Euh, jërëjëf faatu comme may ngeen ma opportunité bi dama bëggoon njëkk a jaal waa Sénégal ak njabootu professeur ba Der Thiam. Mhm. Euh, ndax mbir mi dafa tombé démb ci Toussaint bi. jotuma dem ci levée de corps bi. te ñu partagé woon douzième législature bi wax dëgg yàlla Sénégal yëpp euh, di di ko saluer di saluer mémoire am di ko jaal soxnaam nga xam ne am na fu ñu jaar man ak moom en attendant di fa yegg euh, di féliciter ñi nga xam ne dugal nañ leen ci gouvernement bi <laughs> di leen ñaanal surtout nag parce que foog ne fi mu ne ay ñaan lañ leen war a yebe plutôt que ay félicitations ndax sas bu rëy la Sénégal fi mu toll tey dafa toll fu jafe euh, gi tey suba rek ñu ngi dégg ak gis ay image yoo xam ne ci yenn site yi ay doomu senegal yoo xam ne tey génn réew mi dañuy jaayante seen bakkan ak génn réew mi te loolu nekk na loo xam ne ku mu jaaxalul euh, ñëpp la war a jaaxal mm-hmm. noonu mu nekk sax euh, ñu leen di ñaanal yàlla taxawu leen mm-hmm. Euh, ba ñu mën a dékku loolu ndax loolu moo am solo maintenant li nga wax mooy gouvernement bi dafa am ñaari mbir yu ci am benn bi euh, dañ doon xaar remaniement mm-hmm. remaniement ba nag dafa am lu ci raxaale man dès le départ bi ñu ne limogé nañ gouvernement bi limogé waale présidente conseil économique et social environnemental ca laa ne bii day niroo na lu am euh, lu am euh, loo xam ne daal du battre carte bu gën a bu gën a bu gën a yaatu. Mhm. waaw waaye euh, liñ ci mujjee gis daal wax dëgg yàlla man de joxe woon naa sama xalaat balaa ñuy dem. Mhm. Euh, pour wax ni Sénégal toll na foo xam ne politique bi waruñ ko jiital ci li ñu nar a samp. Mhm. nañ ci jiital rek njëriñu askan wi ak loo xam ne dina mën a génne réew mi ci gudde gi mu nekk. Euh, ni nga ko waxee Idrissa Seck ndax xëy na loolu mooy actualité bi suñu allié la woon ci présidentielle bi. Mhm. alliance bi ba fi may wax ak yow toogaguñu ne génn nañu ci. Euh, du man kese nag maa yor kàddu gi pour àddu ci pour wax ci. Mhm. ndax dañoo nekk ci kuréel. dañuy ànd ak moom kuréel lañu ñu toogoon. Mhm. Euh, décidé ne dañuy dem ak moom alliance. tey jii tamit du ma jiitu kuréel bi nga xam ne moom moom moo war a joxe kàddoom. waaye dama ne xëj na ci nim ko waxee nekk na yéene bu rëy ak euh, ci contexte bi fi ñu toll waaye ndax liñ ko jox dana ko mën a jëfee yéene boobu euh, ndax liñ ko jox muy conseil économique social et environnemental ak euh, ñaari département ministériel ndax dina permettre pour ñu changer euh, maanaam tendance bi nga xam ne tendance lourde yi nga xam ne moom ci boppam. Mhm. constaté na ko ci génnam loolu c'est des questions. Euh, lan moo lal ànd bi man ma ci dara de façon ñun euh, allié nañu moom kenn consulté wuñu waaye dinañu toog ñun jàngat li xew doog a mën a jël suñu ay décision mhm. par rapport ak loolu xew Euh, leneen li ñuy waxati rek mooy euh, vraiment yëf yi mel na ni tamit dafa ëmb réglement de compte politique ndax euh, remaniment bi kàngam yi nga xam ne ñoo nekkoon wër président Macky sàll ànd ak moom depuis booba ba léegi ndax loolu dafa man dañ ma ko defoon man hmm. luñ ma def ci politique nag suñ ko defee ñeneen nit dina dina dina xëj na def defin bi demeewul noonu sax waaye hmm. Euh, affaire yi dafay xaw a mel ni euh, am na ci ay euh, ay ay mën nañ ko tuddee sax wor donc suñ ko defee ñeneen nit mënuma ko lu dul jaaxle ci contexte bi ñu toll nii daal jaaxle naa ci waaye day wane tamit ni que parti parti bi nga xam ne mooy APR su fekkoon structuré nañ ko xëj na du demee noonu ba nga xam ne dinañ yeewu rek décider ne dañuy balayer ay nit nii comme yoo xam ne Euh, amuñu benn benn benn taxawaay mhm. teg fa ñeneen waaw euh, xëy na ñeneen nañ fa teg yàlla moo xam ne daal jaaxal na ma daal mbir mi daal faatu lu la mhm. ci nit wax rek man démb dama nekk ci Toussaint bi mhm. ba nga xam ne euh, suivre ma lu bëri ci actualité bi ndax benn bés ci at bi boo xam ne wax dëgg yàlla dama koy jël dox ci li nga xam ne mooy farata bu mag mooy dem ci ñi nga xam ne ñooy suñu waay dawlu yi di suñuy waajur di suñu ay mbokk wër seeni sëg ah lu ma ci mën ci nettoyer ma nettoyer ko lu ma ci taxaw ñaanti donc journée boobu démb loolu laa ci jiital moo tax suivre ma analyse yu bëri mm-hmm. waaye nag ku ku la ne ku ku ne jaaxalu la mm-hmm. ku euh, ku war na jaaxal lépp mbir mi daal ni mu demee ñu ngi nag xëj na waxtaan ak suñuy ñooñ mm-hmm. pour gën cee mën a àddu. d'accord léegi gouvernement bi ak ni ñu ko tëralee yaakaar nga ne mën na génne Sénégal ci jafe-jafe yi mu nekk euh, jafe-jafe yi nga xam ni mbas Covid 19 bi sooke na ko waaye itam ñàkkum xëy gi nga xam ni sax moo waral ndaw yu bari fi mu ne ñàkk yaakaar ci réew mi ba tax ñuy dem bitim réew jaar ci gaal yi muy mbëkk mi Barça wala Barsaq est-ce que gouvernement bi nga gis euh, mën naa faj yooyu ajo ah en tout cas daal euh, mbir mi fi mu toll ak ak bi jamono ji ñu ko ko defee remaniement nga xam ne que ñu ngi doon waaj ne dañuy dem session budgétaire foog naa ne nguur gi mu ngi waroon a dem assemblée su moytul suba wala ginnaaw suba pour dem défendre budget bi euh, ñu yeewu rek daaneel gouvernement daaneel lépp te daaneel bi sax faatu li ma si gëkk a jaaxal mooy euh, li ñu li ñu dugal ci lim Euh, euh, waruloon a tax ñu daane lii warutoon a nekk rebattre ay carte su du loon xanaa lax lañ ca laxas leneen hmm. mais dafa waroon nekk juste rek euh, nu mu tuddati réaménagement la xaw ma nu ñu koy woowee ndax ñu génnee ak ñu ñu dugal wax dëgg hmm. yàlla waru tax chamboulement bi yëpp mel na ni nag contexte sociale bu grave bi ñu nekk ak xale yi nga xam ne ñu ngi xaru ci géej gi te ñëpp nekk lu gàcce la ci Sénégal lu yéem la ci Sénégal xëy na bëgg nañ suul loolu man nag dama xalaat ne lay war nañ bàyyi nag di politiquer coono askan wi moo tax ñu ñëw xaar ba veyu session budgétaire parce que tey doo comprendre tey jii ni ñuy demee session budgétaire ndax remaniement da nga koy waaj mm-hmm. munoo jëf dëkkmal session budgétaire yeewu tas sa gouvernement yëpp nar leen may ñaar wala ñetti fan pour ñu dem défendre budget boo xam ne dañ koy tëgg xëj na fekkeewuñ ko wala xamuñu ko wala tëgguñu ko. Mm. xam nga doy na waar daal. Mm. Euh, donc man jaaxle naa ci ba nga xam ne man damay on les attend au résultat maanaam ñu leen di xaar ci résultat. Mm. mais Sénégalais yu bëri tey dañuy xalaat ne. mbir mi daal dafa mel ni dañ leen doon xaar ci avion ñu wàcc ci saretu mbaam maanaam euh, dafa mel ni montagne bi dafa accouché d'une souris euh, ndax dinañu mën a régler problème yi nga xam ne moo ñor sénégalais yi tey loolu euh, ëlëm na ñu bëri man day wax dëgg yàlla ëlëm na ma. Hmm. ndaxte sama càmmiñ Idrissa moom liñ ko jox ndax levier boo xam ne la tax na ba tey yéene googu mu bëral te mu nekk lu ñëpp mën a rafetlu sax ndax mu dax dana ko mëne. loolu lu ma ndax ndax lañ ko jox dana ko permettre conseil économique bi nga xam ne sax moom waxoon na une que bu ñu ko falee da ko da fiy dindi ndax jàppoon ne xëy na amul njariñ noonu moom yéene bi mu ci amoon ci programme am loolu yëpp bokkoon na aussi ci li tax ñu ànd ak moom parce que hmm. dafa waxoon ne giseewu ko mu nekk kuréel boo xam ne dafa war a nekk rek au national waaye daf ko buggoon a wàcce ci gox yi hmm. ndax gox bu ndax mu gën a mën a am njëriñ mu gën a mën a amal njëriñ gox mu nekkoon loo xam ne lu ñu rafetlu la au lieu mu nekk institution boo xam ne mu nga fële rek di conseil président dëgg la di ko jox ay xalaatam président neexee mu jëfe ko man leneen li aussi euh, ma bëggoon euh, xam mooy fu ñu toll ci ñetteelu mandat lii doy na waar daal mm-hmm. doy na xel ci côté bu bëri. waaw ñu bëri de yaakaar nañu ne deal moo am ci ñetteelu màndaa bi sax euh, ak dugg sa sekk nii ci nguur gi. amoo ci boobu gis-gis ma ne ñu bëri dañu jàpp ne euh, duggub sa Seck ci nguur gi mën naa doon dilu beneen mandat euh, bi nga xam ne moom la ñu dëkkmal euh, waa nguur ah, gi bëgg a des ak moom politique moom fi mu nekk il faut xam ne deal su dee ay deal la deal dafa am limite hmm. deal moom dina am limite ndax askan wi moom moo yor cëggal guyam te moom mooy décider bu doon deal rek kon Ablaye Wade du fi jógee Macky Sall toog fi Euh, lu leer. bu mm. doon diir rek Ablaye Wade à l'époque xëj na Diouf du fi jóge Ablaye Wade toog fi ndax gis ngeen li fi xewoon yëpp ndem si yàlla jibokaak yu kenn xamul mais mm. lépp mujjuwul fenn. Mm-hmm. donc pour diir que euh, diir moom askan wi tey mooy joxe di war li ñuy xaar ci ñoom nag mooy résultat résultat buy génnee réew mi ci lii. Mm. man nag man man day wax dëgg yàlla bëgguma nag jiitu. sama ay àndandoo ci ci ci ci fi ñu war a jëm mm-hmm. bëgguma leen see jiitu euh, waaye euh, nee naa liñ leen di xaaral daal faat mm-hmm. du leneen lu dul askan wi jaaxle sonn gis boppam su jaralee nag man pour man dama ne sax lii de règlement remaniement xaw ma remaniement de compte dans le camp de la majorité la <laughs> <laughs> loolu moom dafa fës ba mu ëpp Hmm. kàngam yi ñu yeewu balaye leen d'un coup de main nii loolu moom nekk na loo xam ne foog naa ci histoire politique bu Sénégal bëriwul ñu doon am ay remaniement yoo xam ne ñu mel ni euh, egg na foofa loolu nag ci parti bu amul structuration rek la mën a am hmm. euh, remaniement boo xam ne dañ ci laaxaale nouvelle alliance bu day nii bi ñu gis nii tamit Euh, xëj na dañ ko daan def au lendemain d' élection. Hmm. mais def ko nii dans le cadre d'un remaniement foog naa ne. bëriwul bëriwul di am ci Sénégal alors fu ñuy jeexalee mooy euh, Aïssata Tall Sall mi nga xam ne moom itam allié la euh, ñu denk ko ministère des affaires étrangères muy guléet nag jigéen euh, di yor poste bu ni mel ci Sénégal yow ku la xam itam xam la ci taxawu jigéen ñi ci àq ak yelleef wàllu parité bokk ngeen ci ñi ko xeex noo jàngatee pal googa ñel Aïssata Tall Aïssata Tall Sall mu nekk défi bu bees ci jigéen yu ñu safee jigéen rek hmm. jox ko cër mënuñ lu dul rafetlu ko ndax xalaat nañ ne am na war na am profil bi war am na compétence bi la ci des su dul ñu ñaanal ko yàlla yàlla taxawu ko defal ko ci ndam ndax ndamam mooy nekk ndam Sénégal mooy nekk ndamu jigéenu Sénégal mhm. euh, donc jaar fa ñuy jaar nag ba di yegg foofu xëj na man wax dëgg yàlla pour l'instant mënaguma jël yooyee yoon daal mhm. <laughs> waaw ndax loolu waaye nag ñu ngi leen di ñaanal <laughs> ñu jeexal ak sa tur bi ñu gisoon ci list euh, waaw bi jotoon a génn deux jours avant avant bi. est-ce yaa ngi gis sa bopp ci ci biir nguur gi ñu bëri euh, laaj nañu laaj boobu est-ce que nekku leen itam ñoom <laughs> ku ne am nga say joon dooy mm. jaar mm. waaw man nag wax dëgg yàlla am na yoon yoo xam ne mënuma cee jaar te sénégalais yi won nañ ma loo xam ne bi liste boobu génnee ci ay woote téléphone ci ay message ci ay attente nekk na loo xam ne lu ma touché la hmm. euh, liste ba xaw ma ñi ko génnewoon lan moo ci doon seen bébét waaye ébranlé wu ñu benn yoon hmm. li ñu doon jaaxal kay moo doon ñu yeewu wooñu loolu moo ñu doon jaaxal ndax xëj na bu fekkee ni que tànk ñu ngi ci logique wu mooy yoon yooyu nit ñi war a jaar pour dugg hmm. te mënuñoo jaar ci yooye yoon xëj na suñu dugg du yomb waaw xam nga moo tax sénégalais yi def ñu nawle moo ñu gënal lépp lu ñu mën a jox ci cër te sénégalais yi nawloo wuñ ñu nawloo boobu sénégalais yi nawloo ñu ba gis suñu tur hmm. kenn yeewul ne ma ah Hélène Tong da nga transhumé wala da nga biñ ko gisee te fekk du dëgg hmm. gisuñu ci leneen lu dul yow day wax dëgg yàlla am na yéene boo xam ne xalaat nañ ko ne boo dugaloon sa loxo mais loolu ça ne nous ébranle du tout mhm. li ñu doon naroon jaaxal kay mooy ñu yeewu mhm. parce que xëy fu ñu toog daal dëgg moo ñu fay bax mhm. kon ku ñuy àndal it dëgg lañ cay jiital ñu ngi gërëm ñëpp nag vraiment di gis ne yéene bi ñu am si ñun sax vraiment dafa dépassé suñu njortu te dinañ fexe ba continuer di mériter maanaam nawloo boobu askanu Sénégal nawloo. jërëjëf leer na jërëjëf Hélène Tine ñu ngi lay gërëm bu baax coordinatrice mouvement pour un Sénégal d'éthique et de travail M7 nekkoon député ci assemblée nationale moom la ñu doon dalal mun ngeen ko teewluwaat ci réew point com.